jërëjëf monsieur Ndiaye ñuy gàttal rek ndax mi ngi commencé guddi may bamtuwaat bi li nga xam ni jib na fi ñu nekk ay kaddu yu rafet le ministre Seydou Gueye yëkkati ko ñu xam ni ñun Benno Bokk Yaakaar la ñu tudd Benno la ñu laaj da dañu war a nekk benn ci loolu ma leen yëgal ni samedi incha allahu. bu may juumulee si rue 9 la dinañ fa am rue 6 dinañ fa am meeting bu rëy boo xam ni ministre Seydou Gueye moo koy organisé. ma leen wax aussi le ministre wala monsieur le ministre ma leen wax ni ñun branche CRTB bu benn bokk yaakaar. dañu fas yéene génn tuuti Médina def benn organisation au niveau des HLM dinañ ci communiquer incha allah suba walla ginnaaw suba may nuyu tous les camarades de benn Bokk Yaakaar tous les partis représentés nga xam ni Cheikh Aliou Seye tudd na leen ñoom ñëpp damay bañ lim di juum waaye ñoom ñëpp ñu leen di gërëm di leen sant seen teewaay. li may wax nag lu la damay wax ni li ngeen remarqué tey te mu daw sama yaram te mu nekk lu am solo mooy que ni xale yi ñoo ëpp ci biir mbooloo bi vraiment je voudrais rendre un hommage vibrant un grand hommage à tous les jeunes qui sont présents ici parce que les jeunes de la Médina xam nañ ne ñun ñii de di seen leader muy ministre Seydou Gueye muy Cheikh Amadou Bamba Fall nous sommes toujours à vos côtés lépp luy seen mbébét essayé dañ ko saafara xëy ne mënuñu lépp waaye def nañ lu ñu mën te xam ngeen ko vous daane êtes conscient pour ça que vous êtes avec nous donc ñu leen di gërëm toute la jeunesse de la Médina ñu ngi leen di gërëm di sant président Macky Sall nag lu tax ñu war ko jox majorité jàpp naa ni ñett yi ñeent yii la bu njëkk bi mooy ñëpp gis nañu réalisation li président Macky Sall def man nag damay wax ni. ay photo walla jël jël ay nit ñoo xam ne dañu am naqar ñëw teg ci kanamu askan bi neen président deful dara parce que président ci boppam ba muy toggoo le plan Sénégal émersion xamoon na ni moom day bay waaram rek waaye mënul éradiquer la pauvreté au niveau de ce pays am na loo xam ne mënu ko def dafay def mën bàyyi keneen bu ko wuutoo ñëw def li mu mën ba Sénégal matal waaye président li mu def bëri na te les jeunes auront le loisir de faire le tour de la Médina avec des flyers expliquer aux populations li nga xam ni président def na ko lépp te nit ñi di teg seen bët nit ñaa ngi gis auto pont yi nit ñaa ngi gis autoroute yi nit ñaa ngi gis hôpitaux yi muy defar nit ñaa ngi gis bourse familiale yi nit ñaa ngi gis li mu yokkee bourse étudiants yi nit ñaa ngi gis li muy defaree université nit ñaa ngi gis nit ñaa gis nit ñaa gis jaaraama président Macky Sall